liberté balaa dikk nga xaw a dee waaw boo xawee dee ba mu dëkkit ni la xamal nooy jëfandikoo ni la nag xamal nooy jëfandikoo kilifa yépp looloo leen fi bàyyi woon ñi daan def politique ñi daan def diine ñi daan def aada ñépp gindi nit ñi moo leen fi bàyyi woon ndax liberté kese kese boo ŋàbb noonu rekk kenn ku ne nga fénq ko yet waaw sama mag ja ca Tiwaawan Ngoy nee na dañu nekk quartier ñëpp nekk caporal ma nekkuma ko ne mu metti ma wallaay sama xol tàng jër ne ma waxtaan ak chef bi mu xam ni nag jaamu yàlla laa te ku gëm laa diine mu ni ma muñal rekk bu ko yàlla bindee dana ñëw ne ba ñu xëy rekk woo ma ne def ma caporal ne ma rangale soldaar su ndaw sipp mecc leen mecc waaw ñoom it ñu satoo ma ne bi chef bi ñëwee euh, ma ni ko dañ ma sato mu ne jarul wax ndax sa kanam gi ku gis xam ne dañ la sato waaw mu ni ko wante eh, rekkit àdduna du noonu ne ma ni ko xam naa ko wallaay mu jeex tàkk ah? waaye duñ la dugal ci école yi sa jur yëpp def lu ne ba nga génn am sa diplôme baat boo jël rekk defe ni noonu la taxaw ci mbedd saaga ñëpp doxul de waaw boobu doxul su ko defee nag ah mu mel na kilifa ci wàllu xàmme ak ci wàllu jàngale li leen ci yàlla may ku ko xeeb rekk def musiba waaw ndax li li nga gis ci lu la jaaxal Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala anhu tubaab yi dañu ko mës indi fii ci baye ndar ba Gàmbi nit desu fi di kilifa te invité wuñu la sëriñ Babacar si nee na dañu ko tappal médaille nee na melo barab ba ak lafa daje ci kilifa gu weex ak bu ñuul nee kenn xamul nañu toll nee bi ñoo tëgg seen musique yile ak li ñoo tuddee hymne national nee na sama xol baa ngi sedd maa ngi bég nee ba ñu ko tappalee ba noppi nag ba nuy ñibbi ma bëgg a natt xolam fu mbigëreem toll ma ko góor gi daal bés bi rëy na de te nu bëgg nanu mu ni ma doom man dey sant naa ci yàlla ndax ci suba lim bi may faral di jàng ci suuratu yaasin dama ko jotul def waaye comme jataay bi yàgg na may na ma ma jàng ko fi ba tabarkalla mu sell nee ma nit sax waaw euh, sëriñ Alioune ni moom li ko gënoon yéem mooy fonk bi tubaab yi fonkoon Maodo en même temps tubaab ni mu yeewoo ni mu bare lu muy toppatoo surtout digganteem ak sëriñ Maodo def bëytam boobu di ñaan mucc min charril kuffaar di ñaan mucc min charril nasara di ñaan mucc min charril salatini ne jàkka joo dem muy riir tubaab yi xam lu bëyti bi di firi te merewuñ ci Maodo mu ni kon ànd ak borom jikko rekk moo am solo waaw ndax loolu wone ni Maodo lu mu def ci jikko la ko teg ndax loolu kenn du nekk buur ñaan ni yal na ma yàlla musal ci buur bi yal na ma yàlla musal ci ki ma colonisé yal na ma yàlla musal ci yéeféer bi ma nekkal jàkk yépp di ko jàng muy riir ka ngay ñaan di muslu ci moom waxuma ni muñ na ko waaye lu mu xam ni sa bëgg-bëgg la def na ko booba tubaab yi dañuy yëg ni ñett yi mu wax yépp ku ci ne danger nga pour nit ñi xam nañ ko te borom jikkoo ko wax ah borom jikko ko waaye ñoom itam pour fay borom jikko jikkoom donte amuñu jikko jéem nañu ko waaw jéem nañu ko moo tax nga xam ni mag ñi ñoonu gën a xam luy méthode seeni psychologie moo gën a sell suñu bos boo ko xasee xam doo faral di werante ak ñoom waaw moo xam ña ca am politique la walla ña ca diine nag ku ci ne bu la yàlla maye may na la euh, Saliwu Jóob bi doomu Babacar Jóob njaxeer dafa ñëw ni ma diw dafa mel ni lëndëm lëndëm am na digganteem ak président Senghor ma ni ndax mënuloo ci def dara ba mu leer ah, comme doomu kilifa la te boroom bokk la ma ni ko jàddu na ma dem seeti président Senghor waxtaan ci ak moom mu ni tekk ba mu yàgg ni ma bu àjjuma ngeen ànd ñëw ma jóg du dem mu wooma ma dellusi si mu ni ma def ko dimanche ca après midi ndax dana fekk ma féex fekk ma am jot ca dimanche de ca après midi ma àndandoo ak kooka ñu seeti ko naka la ñu agsi rek toog mu tàmbale werante ci wàllu xam-xam ñu waaye yonent yàlla Moussa jabaram bu ñuul bi xam nga ni jabaram nit ku ñuul la woon ma ne ko ah, waaw xam naa waaw na mu demee noon lu ko indi ñu nekk di werante ba mu dugal ca ndeke négritude la bëgg a indi waaw lu rëy ci moom la waaw naka la ko indi nag werante bi werante bi léeg-léeg mu gestu ki ma àndal laaj ko xalaatam di ko tutoyer boole ci ba jataay ba di bëgg ëpp ndax waxtuwam nu may dafa bare nu tàgg ko xam nga ni lanu indi saafara na ko bu nu ñëwoon rekk mu ne lu ngeen fi wut si waaw walla mu ne ay wi nangam nun ñëpp nu gêné waaye xam na ni ki ma àndal doomu nit ku yiw la te boroom xam-xam la te du def ko ku ñuy indi lëndëm lëndëm ñu ñëw rekk mu indi xam teg te kooka di boroom xam-xam ñaari baat yu mu wax seede loo ko laaj ko lu ciy xalaatam tiituwaayee ko ko xam ni nawle la fi fekk waaw ba nu jógee ku nekk féex président féex waa ji féex man ma feex te tudduñu conflit bi ba tey moo tax mag ñi ñoo mën ñëpp ñoo mën ñëpp ah ate ñoom ñoo mën ñëpp ba tax na ku ci di nitu politik ak ku ci di nitu diine bàyyi nga nag loo xam ni suñu ko toppatoo mën nañ ci jariñu ba faw waaw dafa am sama benn baay bu nekk ndar benn nitu politique yónni ko ci man ni ko dama bëgg comme yaay sama xarit di sama doomu ndey nga demal ma ci Cheikh Tidiane nga wax ko ni ko dama bëgg ñu àndandoo mu jóg ak dara jaam ak meloom ak ni ma ko xame kenn yabu ko mu ñëw wax ma yóbbante bi ba àggal ma ni ko loo ci xam mu ni ma noo xaritoo ba noo ndaw ba léegi wante jikkoom rëyul waaw ni ma te nga àndal jikkoom rëy na ni ma kon nag wax naa la yóbbante bi wante bu ko déglu man bàyyi ma ma toog foofa ndax mën naa toog ci lu mëtëdi wante yow mënuloo toog ci lu mëtëdi waaw seen dégg seetal seen dégg te kooko di xaritam ba ñu dee ndaw ba léegi wante terewul mu xam jikkoom yu mel noonu la niti jamono war roy waaw ndax mooy indi jàmm kenn ku ne boo xamee lu xew rekk jàmm na ñooy waaye ki xamul lu xew tey wax lu xew moom la waaw uh-huh. lu xew moom la ndax yëpp dañ ko tënk am nga liberté am nga liberté am nga liberté liberté bi dañu ko tënk de bu ñu ko boyalee rek àdduna tukki waaw ndax am na ku laaj yonent bi ni ko ndax am naa liberté ci toog ci mbedd mu ni dënn ba mu yàgg ni ko boo amee feneen de moo tane wante boo amul lu dul mbedd nag na sàmmoonteeg ñetti yëf bu jëkk bi ku fa jaar bu ko xool ba mu daw waaw ñaareel ba toppal mbedd mi foo gis luy fakkatal nit mbaa mu di ko jam nga dindi ko ñetteel bi ku fiy jaar te amul kàttan téel ci loxoom téel ci loxoom ba mu jàll waa liberté boobu tënkuñu ko ah ndax liberté yiwa koy tënk taxaw ni jant bi ci sow bi lay fenk xale yëpp ni ko waaw waaw waaw moo tax ñu ni bàyyi fi kilifa yi bàyyi fi mag ñi dàq kilifteef dàq xam-xam euh, loo defati rekk yàqu-yàqu dugg nu sa àlluwa mën a tollu itam te boole woo ca yàlla tey def ci neex boole nag man nga àdduna dundal la man nga àdduna sang la man nga àdduna màndal la wante du teranga ndaxit nit ëpp na lekk ëpp na naan ëpp na col mhm. ndax yàlla boo ko daggee àdduna ju biti biti moo fay des yàlla boo ko daggee àdduna ju paasewul biti biti moo fay des ndax alxayaatu dunia kese kese laayibun la rek wa lahwa laayibun la rek wa lahwa wa ziina wa tafaaxurum baynakum wa takaathurum fi l amwaali wal awlaad lu muy jëriñ ndax sa bopp la ndax ñetti yëf daal or gu ne nee na ma jaaxle lool nee na siècle yi mu tudd bare ba mu ëpp na ma jege ko ni ko yaay kan mu ni ma man ci seen maam yi ngeen jëkk am ca laa bokk nee na ma ni ko li nga lim li nga lim boobu Adama juddoogul boobu Adama juddoogul nee na mu ni ma ban Adama nga wax nee ni ma ne te sax bëgg jaaxle nee ma fàttaliku waxu jaafaru sadiq bi ni dégg na ci yonent bi mu ni ko bu nit ñi tuddee benn aadam damay jaaxle ndax li ma ci xam ëpp na téeméeri junni aadam baada aadam ba mu ëpp téeméeri junni nee na masul deñ nag di nekk feebar ci man naka la koy dégge ndaxit njàngalu aada bi ñu jàngal mooy bone nee aadama rek aadama jur nit ñi nga defe ni ci moom la yépp tàmbale euh, miiñ nañu ko ba bu ñu bëggee nga gëm leneen dafa metti te yonent bi tudd téeméeri junni aadama waaw nee ma ni maa ngi beru nit ñi wéet sama borom duma ko bàyyi ba mu woon ma bunt nee na ma bàyyi nit ñi beru leen wéet sama borom lu ne daj naa ko ne na ma gis góor gu baax gu ma xamul tura ma ni ko yaay kan mu ni ma may yoon ci yàlla Idris bi nga dégg ma ni ko ndax dañu ma booleeg yow mu ni ma waaw da nga gàtt da gàtt ñu boole ma ak yow pour ma gàgganti la mu ni ko xaw jaaxale rek ci kañ la nit tàmbale ci kaw suuf mu ni ko ah, boo ko bëggee xam nag demal ca borom ba suñu xam-xam àggu fa xam nañu ni moo bind nit kañ la ko tàmbalee bind moom rekk a ko xam pour wax la ni ñoom lépp luy ubbi bopp di ubbi xel jaar nañu ci te jébbal nañu yàlla yëf yi ndax ku dem ba yonent yi nga yaakaar woon la ni ñoom xamuñu kañ la tàmbali dootoo bàyyi ah doo boo bàyyee rek tardé waaw boo bàyyee rek tardé euh, góor gële wax na ko euh, góor gu baax gële euh, zunnuunil masri waaw moom la ñu tudde góor gi du nuun bii di mbokk Cerno Ibnul Arabi wallaay euh, nee na dafa jaaxle yàgg naa am de góor gi Zunnunil Masri nee na dama dégg ni yàlla tur bi mu tudde boppam mu di Allah boo ko dee jaamoo yàlla dana ko yëgal sa xol ba dana ci def ak tëy gu nga xam ni kenn mësu ko gis ci kaw suuf ni la ma jël ko rekk man itam ci gis loolu rekk nee na tardel ci sama bopp atu yàlla tey ga ñu wax yëguma ca dara nee na may dox ba dajeek ku fooyooy ya mu sol fooyooy lool te mu ñàkk doole nee na ma nuyu ko ni ko yow mu ni ma maay ki fi dese xam yàlla ci jamono nee na ma wax ko sama jaaxleeg sama coono at yu amul benn résultat nee na mu ni ma danga ko wooye ni nga tollu te wooye woo ko ni mu toll boo ci wéyee junni at itam doo am résultat génn ci nee na ma ni ko kan moom mën a teete ba ma génn ci nee na mu digal ma benn jigéen ne man mi doon tiitaru ne maa man ci daara ji ne mu digal ma benn jigéen ni ma kooku boo ko gisee dina dina la wax foo jaar sa borom ba jëriñ te dama soog a seeti ndaw sa nee maa ngi ko fekk ñu ngi ko lit ñu ngi ko defar ñu ngaa defar malax faam tabarkalla mu mel ni doomi buur nee ma taxaw ca bunt ba nuyoo mu ni ma looy dox ma ni ko xam nga ko nee na mu ni ma dafa mel na àdduna bi ñu nekk lépp loo ci wut te bëgg ko wute yàlla wutinu kuy tuutal jot ga dana jafe lu ko ndax yàlla dafa rëy nit ku rëy rekk ko mën wut yàlla dafa rëy wutin wu rëy rekk ko mën a wut ma ne ko waaye yow dafa mel ni danga nga xaw tuuti te wutin bi nga koy wut dafa tuuti te mu muré waaw mu ni ko nag génn ci mu ni ko lu ma tuutal noonu mu ni ko da nga bëgg nit ñi tàccu la waaw mu ni ko wuute woo woo ko boppam pour nit ñi tàccu la rekk a tax nga di ko wut waaw pour bu yëf yi nangoo foo jëm ñuy tàccu ne ko lool rekk nga koy doye te moom ëpp na loolu ñu koy wut leneen la ñu ko doye wallaay waaw ba tax na yoon yooyu ñu jaar ci wut dëgg moo mën a amee njaboot yi wax dëgg yàlla ba moo tax bu ñu xasee addu it pexe dootul am waaw bu ñu xasee addu pexe dootul am kenn mënu leen ëpp xel kenn mënu leen ëpp pas-pas kenn mënu leen ëpp xam 1950 laa ci dugg ba mu teer si ci loxo président Abdou lu ma gàtt gàtt xel xam ni bu waccee li mu amee ma ñàkk bu ko wàccoon rekk ma ñàkk te it wax naa ko ba tey ni ko man daal bés boo bàyyee ma bàyyi waaw waaw waaw ni ko bés boo bàyyee ma bàyyi loolu waxin la ni ko bul bàyyi waaw waaw Uh-huh. bés bu nekk te it sayiduna umar ibnul xataab nee bu mag ñëwee ni la jox ma pouvoir waaw sayiduna umar nee mag bu dikkee ni la jox ma pouvoir nee na ko yeeyoowu ko mag mu ñëw rekk xëy ni la jox ma pouvoir nee na dàq ko yeeyoowu ko waaw nee na mag boo ko joxee pouvoir ngir yaakaar ko mu bañ ne forcé ko jox ko ko moo ko moom waaw te juróomi ati yàlla topp nañ ko président Abdou nekkagul sax premier ministre di ko yalwaan pour mu accepter responsabilité yi nu ko bëgg a jox mu di ko gàntal mu di ko gantal ku mu neex ci yéen na dem laaj ko ko waaw waxtu wu ñu ko songee mu ni te ngeen seet keneen ndax itam bu ma ci xasee dugg itam eh, dafa nekk loo xam ni ay ndono jàmbur la yu ma dajale ay ndono jàmbur yu ma dajale nag dana ko sàmm ci biir sàmm ga dof mën na foog ni dama bëgg pouvoir te fekk na dañ ma forcer ci pouvoir buñ ma forcer ci pouvoir ba jox ma pouvoir ñi ma ko jox duma leen décevoir waaw kenn ku ne mën na ko laaj lii Cheikh wax am na wala amul waaw daan naa bàyyi ba une ci diggu bëccëg mu war a dem añi maag Abdourahmane Sarr benn sama bos nu dem fekk ko ca building toog ak moom di ko yalwaan di ko sarxu ba keroog añam dana sedd ngir bëgg mu nangu ko meetar Doudou Thiam mi nga xam ni du nitu caaxaan sama xarit la sama avocat la daf ma daan wax ni ma kii ëpp na ma président rekk laa ko yéene waaw waxin la ci bu may won ni rek dofuma bu ma gisee ku ko mat rek yow mii sama doomu ndey danaa la wax lu xew waaye xale bii at na réew waaw yalwaan nanu ko sarxu ko lu nekk waaye boobu ma yëg ci moom rekk xam gu mu xam ni Euh, peuple bu ne léeg-léeg ingratitude dikkal ko waxu ko ma ragal la ci moom waaye rekkit it nangu nanu ko sax ni peuple léeg-léeg ingratitude dikkal ko waaye moom peuple Sénégal bi ingratitude du ko dikkal ci moom ndax nag lu ne daj na ko ci lu nu xam lu ne daj na ko mu mel na kon làmbutuwunu mu mel na kon làmbutuwunu mu mel na kon làmbutuwunu waaw ko dale ba fii làmbutuwunu de waaw fa tabaarakallaahu yàlla dinu dimbale dinu won yoon wu nu ca war a teg sunu tànk ba nëgëni ba nga ni moo tax keroog ba nu d'accord ci def mbooloo bi ba ni Serigne Abdou mii bala ko kenn yëg ci Sénégal na ko ñaari kilifa yëg na ko alxaaji Abdoul Aziz yëg na ko sunu bàyyi Abdoul Ahad sañu nu def leneen lu dul loolu kooku mooy charte bu njëkk bi ma ne ko bi ci desit mooy président na fexe ba xam ni duñu ci jëfandikoo lu dul lu mu digle ndax boobu it ci la waaw ma ni ko yii daal moo ci am tabarkalla yàlla jubale ñu ci ci wax ak El Hadj Abdoul ndax yàgg na ay at ca gannaaw maak moom ak Abdoul Aziz bii turandoom nu ngi toog ci sama kër ma ni ko góor gi ñettey sunu texe ñettey sunu texe ñett mooy sunu texe ma ni ko sa digganteeg sëriñ Abdou Lahad bu mu lënd mukk sunu texe la ma ni ko président Abdou wutal mbootu bootal nu ko sa doom piir la bu mu tumuraanke mukk ma ni ko taalibe yi bu leen mere mukk amuñu kàttan waaye am nañu pas-pas waaw waaw Sëriñ ngi toog mi ngi toog maa ngi toog xalifa loo mii moonu ñeenteel ci kër ga dañu daq ñëpp ñëpp waaw mu mel ni kon fa tabaarakallaahu sëriñ Abdou Lahad maa ci kanamam Senghor dem matagul ñaari semaine ma wax ak moom diine wax ak moom ak bokk kenn mu gëne sunu maam bu baax ba la mu fa bàyyi mu wax nu ko lépp muy njariñu àdduna ak yu àllaaxira ba ñu àggalee ma ni ko des na nag benn affaire ma ni ko ah, ma ni ko sa doom bi président Abdou billaahi wal mu ni ma loo ci bëgg ma def ko waaw ma ni ko mu ni ma loo ci bëgg ma def ko ndax kat dimbale ko du bàkkaar mukk dimbale ko du bàkkaar mukk dimbale ko du bàkkaar mukk wax ma la mu wax ma fas ko xam lan la di ko jariñoo boobu ba tey fa tabaarakallaahu ba loolu paase ba loolu paase gisuma lu ciy wara a lëndëmal sunu bët walla jaaxal ci sunu xel gisuma ko xam naa ni ku bëgg sa bopp nag doo yéene réew mi musiba mag ñee ko moom de mag ñee ko moom kenn ku ne na ngay ñaan di wax lu baax di dox lu baax kenn ku nekk na ngay ñaan di wax lu baax di dox lu baax amul benn benn benn kilifa opposition bu mës a dégg ma wax ko safaan sañuma ko xam nga lu tax moo ne gënuñu ma pànk de